wa radiyallahu an ittaabiin wa taabii taabiin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi soppe yi xarit yi seen fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa sallam eh, dellusiwaat na ak yéen ci liggéeyam bu sell bu yiw bu tedd bii ngeen ànd kook seen soppe seen xarit bu leen yéene yiw lool lool lool lool muy Abdoulahi Mbaye di imam fondation Kër Rasoul law ci seen émission ma bëgg Rasoul ci seen site en ligne bu am bi solo muy fkr 92 point com ci njiitu Mouhamad Abdallah bi nga xam ne léppam sopp yonent bi la alayhi salaatu wasalaam bokk kook fondation bi lépp tabaarakallaahu bokk yi eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ki ñu nekkal ci caméra bi nag ci taxawaayam rafet lool muy Omar Rasoul ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu fondation bi yëpp di nuyu bokki jul yëpp di nuyu bokki Sénégal yëpp di nuyu àdduna bi yëpp di leen ndokkeel ci weer wu tedd bu màgg wi nga xam ne ci lañ nekk muy shahru ramadan al mubarak di weeru yiw weeru tedd nga weeru mbaax di leen nuyu di leen ci ndokkeel tabarakallahu eh, xam ngeen sun seen émission bi jàlloon tabarakallahu ci maa bëgg rasul ci fkr 92 point com xam nga ñu ngi woon ci weeru koor ci ay ngëneelam ci ay tedd nga am ci ay li nga xam ne lenn lu ne mën nga ko ci am maanaam xeet bi mën nañ ko ci am su yàlla dogalee ñu dugg ramadaan ku baax ki sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man dey ñaar yërëm naa leen ñaar yërëm naa leen ci seen ñaar bu ñàkkee ñaar ci seen ñaar ñu ne ko yaa rasulallah ñan la mu ne ku dund ak ay way juram ba ñu ñibbi yowmal xiyaam amul seen ngërëm mu ne kooku day yërëm naa ko te dégg nga eh, eh, eh, mu munuma ko seenul yiw ak kan ak ki nga xam ne ramadaan dugg na weeru koor dugg na mu ne ci biir weer wi ba weer wi jeex weer wi dem bàyyee ko bàkkaar mu ne kooku itam day mënumaa xam ak yiwam ndax loolu dafay ñaari mbir yoo xam ne borom bi daf ko def pour ndimbal pour ndimbal kon nag répété wu bi ramadan di répété wu di dem di dellusi mbaa yëg nga weeru koor wu ñëw bu demee beneen weer bu dikkee day ànd beneen ngëneel boo xam ne nekkutoon ci weer bi jàll répété wu bi mu répété wu doole ji day gën a bari bu ñëwee malaayka yi dañuy gën dañ leen di gën a renforcer ñoo ëpp délégation ba ñëwoon ci bële day bii day ëpp te ba noppi tamit képp ku ñëw ci ramadan ba illaa yowmal xiyaamati doo ñëwaat ndax wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa kenn xamul sa mbooloo borom ak armam kudul moom subhaanahu wa taala amul kenn ko xam kàttanu borom bi ci sottindi comme ci malaaka yu bari ak ay façon ak ay xeet ak yu kenn xamul nu ñu meloog nu ñu toll ci lépp nag liggéeyal doomu aadama ak rim bi man jibrilu min quddaamihi miikaalu ashrafilu sham shamsuhuyaami si daaj Malick radiyallahu taala dafa wax ne est-ce que sëriñ bi nga xam ne ku tedd ki nga xam ne ku mat ki nga xam ne jibril ci ay liggéeykatam la bokk te jibril mooy sangu malaayika yi malaaka yëpp jibril mooy san sang te bu ñëwee ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malaaka yëpp tuub yàlla bind yëpp jibril mooy san sang waaw te moom bu ñëwee ci sayyiduna Muhammad day def groupe sukk nuyu ko wan ko ne ko mooy kilifaam moo tax akrim bi man est-ce que jëmm ji nga xam ne jibrilu ak dara jaam ak ni mu toll min xuddaam yi bokk na ci ñi koy liggéeyal moo tax Cheikh Ahmad man di kii mooy sama waay muy Seydina Mohamed mi antal karimu anal xadimu dahran udimu fii ka sanaayi yow yonent bi de sallallahu alayhi wasallam man de yow laa tippo yaay boos bi man maay sa liggéeykat yaay sang bi man maay sa jaam bi lay liggéeyal laxasaayu li fi ak sama ruu gi nag mi ngi ci sama jëmm ji duma ma dañ di liggéeyal loolu lum la wan tedd ngaay maqaamaam dara jaay koweek sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ba kenn mënu koo limite amul kenn ko mën a xam dara jaam kenn xamu ko ku dul boromam maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayabatun fal taqra an soratan nañ mi loolu la Cheikh Bamba wax matam googu tedd ngaam googu koweem googu maqaamaam yooyu kenn xamu ko ku dul borom bi subhanahu wa lii ma la wax nag soo bëggee xam ci dara kaay ma yebal la ci alquranul karim soo demee nga vérifier benn saar bu ñuy wax soorata naj mi danga fa fekk lii ma la wax boo ko jiixee benn maa nga fay fekk maa maa boobu mooy fa awha ila abdihi maa awha kenn xamul maa awha lan la kenn xamu ko kenn xamul lu ci dëxuñu ku dul borom bi subhanahu wa taala ak ki nga xam ne moom la ko jox ñoom ñaar dong dong dong kenn bokkul su ko defee nag kon loolu li mu lay jàngal wan la ko ke nga war koo xam war ko dund mooy doolee sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma sekk te ndeysaan toujours day wax ne kenn du sayduna muhammad loolu rek kay dëgg te fii sax am na émission kenn du sayduna muhammad am na émission maa bëgg rasul mooy sama émission bi am na émission ma way rasul am na émission dégg nga tabarakallahu maa sopp sayduna muhammad te émission yëpp ci yonent bi la jëm ndax moom mooy mooy markasul fuhumi wal maani fondation Kër Rasul yëppam ba kër yi ci seen bopp Kër Rasulullahi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam amul moom ñoom fondation bi ñoom moomuñ dara yilifuñ dara jàppuñ ci jàppuñ seen yoon ci dara lépp dañ ko jox yonent bi alayhi salaatu wa salaam te it nag attention moo ko moom de kër goo gis ñu askane ko nit moomu ko dafa mel ni rek moo ko moom sibxu milki la am na lu wax sax tamlik ak sibxu tamlik moomeel yu woyof la moomeel pire. mooy ngir borom bi teg ci kanam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comme ci terale dara nag Cheikh El Hadj Ndaw wax na ko borom daaru salaam Cheikh El Hadj Omar Ndaw dafa wax ne kullul makaarimi min siwaaka iaaratun amal muiru fa anta maliku sha mboolem luy tedd nga mboolem luy teraanga mboolem luy yiw mboolem luy mbaax koo fi gis mu yor ci dara dañ ko ko dénk dañ ko ko abal ki ko able nag mooy yow yow rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag terale nañ ko ramadan terale ko xeetam Ramadan ñëw na ñi ngi ci biir fi mu nekk nii ñi ngi ci biir di xiif di mar fondation bi la takk ndiggam laxasaayu ndax lépp luñ tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fondation baa ngi ci biir bés bu judd bés bu bésu juddoom bi dikkee fondation bi dana ci def loo xam ne doo fekk benn barab boo xam ne lu mel noonoo nga fa te ñu ngi koy niral waaye lu ko dab doo ko gis pour lan pour wane rek bég bég rek ci juddoom bi bég rek ci anniversaire bi bëgg rek bëgg rek bëgg rek ci moom léegi nag lii nag ci la bokk muy ramadaan mooy shahru ummati rasulillahi mooy weeru xeet bi ñu ngi taxawoon ci émission bi passé ci fi borom bi ne asawmu lii wa ana aji si bi xam nga comme que dañ lay ubbil compte compte ramadan bokkul ak sa compte ngiru ndund bu ramadan jeexee ñu tëj compte boobu fermer ko di xaar beneen ramadan ñu ubbi ubbilaat la beneen compte ci yi ngi ciy def bokkul ak nag ramadan ci boppam weeru koor wi ci boppam borom bi def na maa ko moom maa koy fay loolu la borom bi wax asaw mu lii wa ana aji si bi koor maa ko moom maa koy fay ah ulamaaw yi nag dugg ci biir géew bi nag di seet lu tax mu wax loolu lu tax mu wax loolu ñuy gis nag di seet maa ko moom maa koy fay borom bi moo moom julli moo moom aj màkk moo ko santaane moo moom génne asak moo moom jokk bokk moo xam jëflante yu rafet yi moo ko santaane loolu yëpp moo ko moom moo moom jaam ñi moo moom adduna moo moom yawmal xiyaam moo moom aljanna moom safaan yooyu yëpp moo ko moom moo moom yëpp lu tax nag mu ne fi yàllax yooyu yëpp na koor maa ko moom maa ko moom maa koy fay asawmu lii wa ana ajisi bi haa ulama wi nag gëstu ñu indi ci fanweeri wuute ak ñett 33 ixtilaaf ay wuute ñu ne lii la li tax mu ne koor maa ko moom ñu ne lii la lu tax koor mu ne maa moom ñu lii la ba daj benn wala maa yëpp walbatiku ci ci tontu ci xalaat boobu déggin boobu ñu ne kon bii la déggin boobu ban la ci fanweeri wuute yi ak ñett déggin bi bu mooy bi borom bi li tax mu ne asawmu lii waa naa aji si bi koor maa ko moom maa koy fay mu ne dafa bari ñu fi woote uloohiya bari ñu fi woote rububiya na may yàlla bari na fi may yàlla firaw na waxoon na ko demoon na ba bew na ana rabbukumul aala ay waaji dem ba yàgg mu ne maa alimtu min ilaahin xayri xamu lu mu leen fi beneen yàlla bu dul man Namroos woote na ko ñëpp ku ne di nga ku ne woote na na may yàlla ci kaw suuf maa yàlla ndax lan ndax teraanga bu langi dañu baadoloo borom bi dafa leen a teral di leen teral di leen teral ñu waroon a jël teraanga ba delloo ko ko ñu moomale ko seen bopp teraanga ba dem ba yàgg ñu walbati ko ne sax faf man la sax faf man la laa ilaha illallah loolu baadolo mënu ko paase ak goree di ak waru te ngor baax na ci mbir mi de gaa yi ngor baax na ci mbir mi de kenn ku ne woote nga fi ne maa yàlla lu ne santaan buddi lu ngay garab gas lu ngay teen tabax lu nga ay soto lu ne defal lu ne defal nañ ko laaj na fi ay alal dégg nga nañ ma indil nangam may yàlla coow li bari ñu dee indil ay teraanga lu ne ba mu des woor amu fi kenn kuy wooteeg yàlla wala laata usaa yéen sampoon ci kaaba gi amul benn yàlla buñ mës a wooral benn bés musul am yàlla bu ko fi santaanoon gaa yi duñ ko def nga xam ne da leen da leen di wóor na ñoom duñu yàlla moom it ñoom it ñu xam ne duñu yàlla yàlla it xam ne duñu yàlla looloo tax léegi nag moom bi santaane santaanee koor nag ñu woor xiif mar ba jant so min tuluil fajri ila xurubi shams ñu xiif ba mar ba jant so lekkuñ naanuñ mun a ñu gis ne ba àdduna soso ba fii ba fa mu amul benn buur buñ fi masawu xiifal maral amul amul mu ne nag ah kii kon maa moom kii maa moom maa koy fay asaw mu lii waa naa ajji si bii ñu bëgg ci nag liggéey bu rëy boobu gannaaw maa ko moom maa koy fay léegi nag te koor weeru koor borom bi bu lay jox chèque bi du la ko jox fii ci àdduna te bu la koy jox dalay fekk sa biir kër ci aljanna kon nga yëg ne weeru koor du dugal aljanna day fekk nga dugg aljanna ba toog ndax kont lañ la ubbil ci weeru koor boo yàgg ñu jox la ko bokkul ak na weer wi ci boppam borom bi na moo ko santaane woon lii la ciy joxe loolu moom dong la diggam ak yow te sa kër aljanna ngay toog ñi convoqué la wu ne la kaay wuy ji borom bi biroom su wa taala subhanahu wa taala subhanahu wa taala nga ñëw wuy si ko mu ne maa la santoon koor def nga ko ni ma ko santaane la ca manqué mottalil naa la fulal ndeel naa la mi ngi nii am direct loolu la borom bi wax loolu tax nag mu ne asaw mu lii waa naa ajji si bi koor maa ko moom maa moom maa koy fay loolu nag su fekkee yàlla dogal na am na nañ laxasaayu bokk yi nañ jéem a góorlu booy defal sa bopp bul tàyyi bul bàyyi sëriñ Adi Touré wax na ko nee na bul toqi bul yoqi kuy wut yàlla soo sawarul sa am ko wóorul te dooree Cheikhu Tidiane su ko defee nag loolu dañ ko bëgg lool ñu bàyyi ko xel kuy defal sa bopp daal bul toqi bul yoqi bul yox yoxi bul dellu gannaaw ndax li ngay def yaa ko moom kon nag ñu ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp eh, tabarakallahu yéen a noon seen soppi Abdoulaye Mbaye imam fondation ka Rasoul mu fegg ak sunu man bu baax bii tabarakallahu waaw Omar ana Khadim Khadim seen anam sunu jàmbaar jooju ci émission bu rëy boobu muy dégg nga maa sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa sopp Rasoul dégg nga ak sunu xale boobu kenn du Seydina Muhammad ak ma way Rasoul ñu léegi kay ma naara ngi naar yaa ngi weer bi na acca kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi